soxna jéema jóg way fi ngeen sewey jaara moo di ba mi des di feeñaat teeram wa de foofu ndaw soxna jaara bu génn soxna jaara kon te foroon te foon nga yàlla na bi des yàllal yàlla yàlla jox barke soxna jaara aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi xaayili fi kitaabihi l aziz fa zakir fa inna zikra tanfau l muminin wa qaala subhaanahu wa taala fa zakir bil qur'aani man yaxaafu waid wa usalli wa usallimu ala abdillahi wa rasulihi allazi ma taraka baaban yalamu fihi xayran ilaa dallana alayhi wala tarixan yu addi ila charri ilaa xasarana minhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara yéen ñi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi ànd ak ñun ci télévision bi nga xam ne moom moo di mafatihul bichri ba tey ñuy ànd ak yéen ci émission yi nga xam ne moom la ñu naan wàccaayu màggal poroxaan ñu fas yéene koo defee fii tey ci dëkk bu sell bi mu di tuuba fas yéene ànd ak ki nga xam ne moom moo di Serigne El Ndiaye Cheikh Ndindi ñu gën koo xam ci taxawaayam ci daara yi waaye ñu gën koo xam ci taxawaay bi ci diinal islam gën koo xam itam ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy def jëmale ko ci diinal islam jëmale ko ci njàngaleem Serigne Touba mi nga xam ne itam macha allah lu am solo la. kon mbokk yi moom lañ fas yéene ànd ak ci lan la ñuy ànd ak moom moom moo di taxawaayu jigéen ci lislaam euh, kan mooy jigéen ana yan àq mooy li ko lislaam jox waaye itam kan mooy soxna jaaratullahi ba tax tey mu doon royukaay ci mboolem jigéen ñëpp euh, kon mbokk yi dañuy ànd ak moom mu daal di nuyoog mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan télévision ma faatihul bichri suñu paree itam ñu daal dugg ci li nga xam ne moom moo di waxtaan wi nga xam ne moom lañ fas yéene ànd ak sëriñ Ela Ndiaye euh, Cheikh Ndindi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa malana muhammad wa wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen télévision bi nga xam ne moom mooy euh, Al Bichri TV ñu ngi leen nuyu fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi fas yéene ànd ak yéen jotaay bi ni nga xam ne la ko soxna Jamilatu waxe ñu fas yéene incha allah taala ànd ak yéen eh, jataay bi nga xam ne ñi ngi ciy waxtaane kenn ci kàngami lislaam yi nga xam ne liggéey na lislaam lu rëy rëy muy soxna jaaratullah Mariama Bousso waxtaanaa la ci ni mu eh, tërale question incha allah taala lu ci ñëw rek ñu jëm cee leeral suñ kam kàttan ak lu ñu ci waxtu mooy eh, jërëjëf euh, sëriñ El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi kon moom lañ fas yéene àndal euh, ñu daal di dugg ci li nga xam ne moom moo di waxtaan wi ndax dafa mel ni ki waxtu wi dafa daal di tënku euh, ñu bëggoon a xam maanaam sëriñ bi ana lan mooy jigéen ak lan mooy xaq yi nga xam ne islaam jox na ko jigéen. maanaam ngir leeral lan mooy jigéen jigéen mm, benn maanaam genn wàll la ci société bi askan wi mi ngi toggaloo maanaam mi ngi composé woo ñaar ci ñaar ci góor ak ci jigéen jigéen kon mooy genn wàllu mooy genn wàllu askan wi walla sax mu ëpp ci askan wi ndax jigéen ñi dañuy wax ne ñoo ëpp góor ñi borom bi subhaanahu wa taala ci tënk bu gàtt bi nga xamee ne bind na ki mu njëkk a bind góor la muy aadama alayhi salaam wane ci kàttanam ci ne mënoon na tey di bind ñëpp duñ am ndey duñ am baay ndax aadama amul amul ndey amul baay mu bind ci moom xawaa mu jigéen xawaa moomu am baay ci amul amul yaay moom xawaa moomu nag kon mooy jigéen aadama di góor nga xam ne kon ñoom ñaar seenu motlante ba ñu tàmbalee dunduk doomu aadama bi mu tàmbalee rek njëkk ñuy ñëw ci kaw suuf ci aljanna la ñu tàmbale woon ànd la ñu tàmbale woon motlante ñoom ñaar ñu ñaari xaaj yoo xam ne mënuñoo benn mënuñu ca dem bàyyi morom ma borom bi subhaanahu wa taala ni mu ko waxee surat nisa bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha alladina amanu taqullah yaa ayyuha alladina amanu ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kaana alaykum raqiba borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne mi ngi bind doomu aadama yi ci benn bakkan bind leen bind ci bakkan boobee jigéen kon foofu la jigéen tàmbalee muy kon genn wàll ci askan wi jigéen moomu nag laajum ñaareel bi di bu am solo mooy yan xàq la ko lislaam jox ndax nañu bàyyi xel ne euh, askanu lislaam moo gën a jox jigéen xàq wurul moom lu jiit lislaam di ñëw fi lislaam wàcc muy muy muy arab yi li nekkoon seen baax moom mooy ku ci am doom ju jigéen ku ci am doom ju jigéen da nga ko daan gas suul muy dund nga xam ne doo doo doo ba mu faatu doo ko xoj mu faatu waaye li gën a métti ngay def mooy suul kuy dund moo tax yàlla di wax wa idal mawuudatu suilat bi ay dambin qutilat naan ñoom loolu moo ko waral yàlla wax nañu ne bu nit masaana toog cib jataay ba nit ñëw na la sa soxna am na doom nga ne lu am ñu ne jigéen la dangay gis kanam nga ñëkk dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim da ngay gis kar kanam ba ñëkk mu mer merin woo xam ne jéggi la dayoo tàmbali nag di naan man ndax nan laa koy def moo tax dama ko tëj ci genn kaaf rek ba mu dee ma doo ko suul wala dama koy suul noonu muy dund am na kon wàccuwaay boobu lañ joxoon jigéen civilisation yi ci des it nag gisin seenu gisin wuutewul eh, eh, ci ci loolu dix-huitième siècle am na ndaje mu mag muñ defoon ci France moo xam ne eh, maanaam ay ay ay ay scientifique yu mag ñoo fa daje question bi ñu tegoon ci taabal ji mooy jigéen ndax ndax nit la jigéen ndax nit la wala du nit ñu dem ba ci yàgg ñu ne nañ d'accord ne nit la waaye bu dee nit nit ku matadi la goo xam ne ku doyadi la am ci civilisation yi ñoo xam ne dañ naan jigéen bu jëkkëram faatoo bu jëkkëram faato waratuta dund dañ ko war a booleeg jëkkër ja takk leen suul leen waaye moom jëkkër ju faatu waratuta dund bu demee ci lu mel ne Inde nga xam ne dañuy seen xeet yi nga xam ne dañuy dañuy taal dañuy taal ku faatu ñoom dañuy wax ne jigéen bu jëkkëram faatoo dañ ko war a booleeg moom taal waaye waratuta nekk koo xam ne kuy dund la yeneen civilisation yoo xam ne ci lu dul islam ba léegi liñ daan def arab yi daanañ ko def mooy jigéen bu borom këram faatoo dañ koy boole ci miraas mi ni ñuy jalee xaalis bi di ko séddale kër yi ñu di ko séddale gëléem yi ñu di ko séddale noonu la ñuy séddalee jabar yi soxna yi nga xam ne ku jot donn maanaam képp koo xam ne yaa féetewoo alal jooju yaa donn son son soosu xam ne kon ku ku ñu donn bokkatoo ci waratoo am ndono islam bi mu ñëwee moom moo jël jigéen jox ko ay xàqam li nga dégg ñenn ñi di kaas naan jigéen lu tax ñu naan góor ñaari jigéen benn ci miraas loolu tëralinu lislaam la waaye lu jiitu lislaam jigéen du am dara te dañuy wax ne loolu loolu ci même ci xalaat nii dong ci euh, alxayat jumaa yi maanaam vie sociale bi da ngay gis ne lu ko màndargaal lu ko nangu da yomb jigéen bu ñu miraasee ku faatu dañ naan góor jëlal ñaari cër jigéen jëlal benn jigéen ji ñu ne ko sa cër bi nga jël demal denc ko yaa ko moom lekk ko góor gii nag moom di séddoo yow ab cëram. bu subaa ci lay dépense ngeen bokk ko lu mu doon fere yi jël say fere bu dee am nga am nga am nga borom kër boo demee borom kër ba yiir la nga jël sa alal euh, téye ko nga xam ne kon lislaam ak yi mu jox jigéen bari na ak yu baree baree bari la la ko dale ci ak ak can li ko dale ci ndono li ko dale ci nangu ne moom nit la nangu ne moom nit la boole ko société bi inal muslimin wal muslimaat ba aayaat jeex yëpp fu yàlla li ma góor lim ne fa jigéen bokk ci ak yi ko joxin mooy jaamu yàlla am na ci àq yoo xam ne àq miraas la ñuy wax ne jigéenu góor yemuñ ko waaye euh, bu dee àq jaamu yàlla yàlla fay leen ñoom ñaar ñoo ko ñoo ko ñoo ko yem yàlla buy wax ne ku jëf lu baax min dakarin wa unsa la wax min dakarin wa unsa a unsa góor wala jigéen ku ci def lu baax fala nuxyiyannahu xayatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yamaluun kon yàlla buy wax ne ku def lu baax mu fay la góor ak jigéen lay yamale nañ xam ne boobaa kon ñoom ñaar ñoo yem ci ci fànn googu jigéeni lislaam lislaam fonk ko ba tax mu mu mu mu mu jox ko kiiraay kiiraay ne ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa bi ma fadala allahu baadakum ala baadin wa bi ma anfaqu góor mooy yor kiiraayu jigéen moo war a sécuriser jigéen moo war a aar jigéen moo war a taxawu jigéen moo war a sàmm jigéen kon loolu ci àq yi ko lislaam jox ci la bokk Euh, danañu daa wax nag fii ak yoo xam ne l'islam jox na ko jigéen ci suñ société bii ñu nekk daanaka ñu ëpp ci ñoom dañ koy ignorer joxuñ ko jigéen ko ci yu ndaw bokk na ci yooyu àq diisoo soxna boo ko amee da ngeen war di diisoo yéen ñaar ñu bari ci ñun góor ñi dañuy yaakaar ne jigéen gi moo war a diisoo ci lépp lu muy dugg waaye góor gi warut diisoo déedéet tashawur diisoo dafa war ba d'accord am ci mel ni mbir saa booy diisoo nag yow la lislaam jox yow góor gi yow la lislaam jox pouvoiru exécuté maanaam bu bu def jotee yaa war a def waaye nag da ngaa war a diisoo sa soxna ci misaal ci mbir yu baree baree baree bari sa soxna it am na àq ci xam say mbir sa vie privée da nga associé ak moom ak sa dund kon sa vie privée sa soxna da ko war a xam da ngay ñu bari ñoo xam danañ faatu seeni compte banque day niil ndax seen soxna xamul woon ne am nañ banque ci barab sangam barab sangam ay terrain yu ñu amoon terrain yi ndax seen soxna xamuñ woon ne am nañ terrain barab sangam barab sangam alal yu ñu amoon de confier ko ay nit dénk ko ay nit day niil parce que daawuñ ci diisoo ak seen soxna soxna si am àq ngir xam soxna si am àq ci diisoo ci famille bi ci famille bi ci misaal doom ji juddu soxna si dafa am àq nga diisoo ak moom ci tur ñu bari ci ñun ñaare soxna day ëmb juróom-ñeenti weer ba am doom maanaam nit ñi ña gàddu liir ba yóbbu ko ñoo koy wax tur wi fa lay dégg tur ca loolu jaaduwut jigéen gu ëmb ak ni ëmb méttee war na bu bu doom ji juddoo diisoo ceeg moom mën naa am sax nga bàyyi la nga jàppoon ci misaal nga ne ko damaa ko bëggoon a tudde diw mu ne ah man de sama xel bi ma bi ma bi ma ëmb li ma lépp maa ngi naan bu dee góor ma nañ ko tudde diw nga bàyyi la nga jàppoon fekki ko bu dee doog nga ci leen fay daa asam te fa doog naa loola waaye wa shaawirum fil amri ñu mënut ñàkk ñu bari ci ñun dañuy xañ ak jigéen jooju maanaam jàpp ne kon wax ko tur bi sax ak ñàkk fayda ca fekk déedéet léegi dégg mooy ci diisoo gi ni soxna war a tàggoo buy dem noonu la góor war a tàggoo tàggoo gi seenu tàggoo li ñu wutale mooy sa soxna sañ na tàggoo nga ne ko toogal yow nag boo tàggoo du ne la toogal waaye nag dana tax ba ku ñëw fii xam foo jëm danga wax ne lan moo gën a nekk doy dal jigéen ci kaw suuf sa soxna nekk ci kër nga bàyyi ko fa nit waaxu ba agsi ne ana singara ji mu ne ah daa génn fu mu dem mu ne ah wax dëgg yàlla tegguma fenn de maanaam day wone ne yow naw loo woo soxna si fi bàyyi ca loolu loolu jaaduwul bokk na ci diisoo ci njaboot gi mooy doom ji feral doom feral doom dañ cee war a diisoo yéen ñaar da cee a diisoo ba consensus am ci ngeen dagge ci ci ci menn mbir waaye ñu bari ci ñun dañuy seet seet ne àjjuma damay faral damay wàcce doom ji ci loolu du yoon yaay mi nampal dafa am euh, umuma xanaana gu nekk ci moom maanaam cofeel gum gum am maanaam mm, cofeel gum am moom yaay ji léegi kon préparer loolu bul seet seet wut benn coupé maanaam dagg diggante bi relation bi dox seen diggante nekk kat fii ak fii ak weer damaa bëgg a feral doom ji mu di ko préparer di bu jooy muy muñ jooy bu bëggee namp mu di ko mu di ko muñ tuut waaye ñu bari ci ñun duñ def loolu dañuy seetee rek dagg ko xale buy dem daara da ngeen cee war a diisoo yéen ñaar sama doom doo ko bëgg a daara daara sangam sañ na moom ndaw si ne la ah may ma ma dem xoole daara ji ba xam dem seet daara gi ñëw na a ah daara yi Alaaji Cheikh ni di wax yàlla doyuma daara ji nangam ak nangam ak nangam man daal daara sangam laa bëggoon ko ma fa yóbbu ki naa nga bëgg sañ na nga fekk si ko foofa parce que moom am na parti am na am na wet gu mu waaye sëñun nag man da wax ne sëñun moom ne la doo ko yóbbu daara sañu ne la doo ko daal sangam waaye am na sañ-sañu nag man am na àq ci yéen ñaar ngeen di soci doom ju jigéen jigéen bëgg a maye ñun ñu góor ñu bari bu ñuy maye yaakaar ne ñàkk fayda la sax nga diisoog yaay ji déedéet du ñàkk fayda da ngaa war a diisoog yaay ji waxtaan ak moom ne ko kat man diw dama ko bëggoon a may diw loo ci xam ah bu ne la man de kooku de wax di yàlla yaay mënu maa séq ak moom ak ngoro maanaam mënuñoo goromante ma ak moom ndax nangam ak nangam ak nangam mu dag sañ na ko parce que da am relation boo xam ne bu bu sëy ak xase am day weesu ñaari ñuy sëy relation bi day nekk relation familial boo xam ne ñaari famille dañuy jaxasoo kon bu dee mun mënut nekk sañ na nga nga nga fekk si ko ca boo dogoo nag mën nga koo may mais conséquence su ci juddoo ëllëg si yaay ji cër bi mu ci amoon dana feeñ dana suyee ci ci ci wàllu googu yooyu yu mat a bàyyi xel la ci yu bëree bari yoo xam ne ñun ñun góor ñi en général duñ ci diisoo ci ay àq la yoo xam ne l'islam daf koo jox jigéen àq yu bëree bëree bëri nag la waaye ni ko jamono nag indi nag bëgg tink jigéen ne ko nag libéral nag bu la neexee liggéey yi da koy dégg ñu bari naan l'islam day koñe jigéen jigéen daa war a libre pour liggéey non non jigéen balaa mën a dem di liggéey yi condition yooyu dagee ci mu liggéey yi amut amut fii amut fii vraiment amut fii boobaa kon nañu bàyyi xel baax surtout tukki dem réew ak réew dem Dubaay dem Mauritanie dem fu nekk di jënd ay ay marchandises boobaa ci àndoog sa borom kër àndoog sa rakk joo bokkal nday baay àndoog àndoog yooyu yi lislaam tegale boobaa loolu moom lislaam du ko mën a ubbil benn yoon loolu mu dem ba nekk daloora contrainte boo xam ne boo ko deful da ngay faatu ca naa ci ak it bëriwul kon nañu bàyyi xel ne eh, égalité yi ñuy wax it nag nekk égalité góor ak jigéen yàlla yemalewul góor ak jigéen dafa am kum jël jox ko pouvoir bi gën a rëy muy muy góor loo ko jox a àq dana jox dana ko euh, bàyyiloo xel a limites yoo xam ne fa la yem. jërëjëf sëriñ Alaaji Ndiaye Cheikh Ndindi ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne leeral na ko ci kan mooy jigéen ak yan xàq mooy yi nga xam ne yooyu la ko lislaam jox mu mel ni ki def koo tënk rek waaye dafa mel ni ki amoon na euh, yu bari yoo xam ne mënoon naa gën a ñëw waaye nag waxtu wi moo ko mayewut incha allah dinañ am ak moom beneen jotaay boo xam ne dañ koy daal di waxtaan moom ci rek bi wàccaayu màggal poroxaan la ñu wax ñu bëggoon a xam euh, sëriñ bi euh, kan mooy soxna jaaratullahi ak lan moo nekkoon ay jikkoom ak euh, ana soxna yi nga xam ne ñoom ñooy dund léegi ci jamono yi yan jikkoo la ñu war a roy ci soxna jaaratullahi jërëjëf soxna si xam na loolu mooy li ñuy wax lëbbul mawdon mooy dëgg-dëggi mbir mi xam naa soxna jaara xamle ko yaakaar naa ne jamono yi ñu toll képp kuy déglu yiy wax ak di xool yi wane Mm, da ci am lu doy ci yu baree bari jigéen la woon joo xam ne ju ràññ ko la woon yàlla tànnal ko aw askan ci ñaari wayjur ñaari askan yi wayjuram yëpp nekk ñu sell ñu baax di ay jaamikoti yàlla di niti xam-xam di niti alquran ak sunna sunante bi sallallahu alayhi wa sallam di nitu jikkoy rafet waaye bi mu ñëwee moom nag doyloowul ne askan yu ma feeñ baax na rek mu daal di frank layu waaye ak njàmbaaram ak mbaaxam dafa jéggi dayoo seen nga wayjur yu baax rawatina nday ju baax day fondement bu rëy rëy ci doom ngir mu mën a am dund gu jag gu rafet ca moom wayjuram wu jigéen wu góor wa yéggi na waaye wu jigéen wa rek ci misaal dafa nekk royukaay bu yéeme nee nañ nee nañ soxna jaara keroog bi muy dem kër ñu liñ baaxoo def mooy jigéen buy dem kër dañ koy teg ci kanam nit ñi di ko dénk boo demee da nga def nangam na nga def nangam na nga def nangam nee na soxna Sowal dafa wax na ne ah jërul ngeen di dénk ndax lu nekkul woon ci moom ba nga ni mënut nekk ci moom ca moom def naa ci moom loo xam ne jàpp naa ne fu mën a dem bu fa yóbbaale loolee di su am ci ñoom luñ la xare loolu na moom la dund njàmbaar googa jikko yooya nekkoon jaamukatu yàlla jaamukatu yàlla boo xam ne bari na lu nekk Serigne Touba yàlla ci ak ndawa moo ko ci def. lu nekk ci ak ndawam ci loolu ci yooyu doon ci ñëw incha allah ci ay jikko yoo xam ne yu yuñ ko ma toroyee waaye nee na Serigne bi muy toll ci ñeenti at juróom la soxna jaara daan waxtaane gaa yu baax yi maanaam niñ daan fanaane naafila tatajaafaa junubuhum anil madaaji ñoo xam ne seeni seeni wet duñ ko laalale ab guddi mukk duñ ko laalale ab lal mukk guddi duñ nelaw ci ab lal mukk soxna jaara waxtaane gi ñu waxtaane loolu nee na Serigne Touba demagul daara de waaye bi mu déggee loolu daa daal di day def bu guddi jotee mu daal di taxaw fanaane taxaw maanaam ngir dégg gi mu dégg loolu nga xam ne soxna si day am jafe-jafe ngir sa ku baax ki tëdd ci ab ca booba demagul daara kon loolu lu lu lu wayjur wu jigéen def ci doomam la wayjur wu jigéen dafa am rôle bu rëy bu muy joué kon jigéen dafa war a waaj li ñu naan al ummu madrasatun ida ida aadataha aadata shaaban tayyibal araqi jigéen école la ab population la école la boo xam ne population lay former boo ko waajalee ba mu mel ni mu war a mel rek boobaa ab population nga nga former bu mat sëkk. Soxna Jaara nag jikko ñaar la jikko ñaari jikko moo am jikko yu bon ak jikko yu baax jikko yu bon mooy ànd ak sunu bakkan sunu bakkan seytaane ci yooyu lay lay lay fexe ba loolu di di fa jaare li mu bëgg mu di ko jaare di ko jàllale. jikko yu bon yooyu nag yàlla dogoon loon na moom mu xeex ak bakkanam ba nekk jàmbaar ba dindi yëpp lépp lu xeet jikko yu bon rëy kañaan soxor bëgg àdduna njësal wanewu yëg sa bopp yëpp loo xam ne ay xeeti jikko yu bon la soxna si xeexoon na ak bakkanam ba not ci bakkanam notil goo xam ne jéggi na dayo xam nga eh, munta ak ak ñàkk rëy munta weesu nga nekk ak ñoo xam ne sey wujji lañ ci la ñuy tuddee wujj te saa su ne bala ñoo yewu ñoom nga duyel nga ñoom ñëpp seen i ndaa ba fees bala ñoo yewu nga duyal leen seen i ndaa ëtt bi amul doo ko aayaloo kenn ci bale ko lépp lu ñu defal nit doo ci doo doo ko ay aylo ak ñoom loolu ak ak oyof mun ko weesu respect maanaam jox cëram jox borom kër cëram it dëgg-dëgg mënut a weesu. laax ba mu tàgg ta baaxooloon a defal euh, sëñ Maam Aram Sali bis boo xam ne togg na laax ba noppi jub néeg sëñ Maam Aram Sali bi sëñ Maam Aram Sali di génn yëgut maanaam sëñ ne soxna jaaraa ngi yor laax bi nee nañ mu génn jëm ci tool ya soxna jaara ni mu respecté soxna Maam Aram Sali néew ko mukk ne ko ah sëñ bi laax bi noppi na ah sëñ bi xaaral ba ndékki doog a dem loolu xam nga lu baax la waaye defu ko dafa yanu laax bi topp ci gannaawam topp ci gannaawam àgg ca tool ya mu ne ko dama noppi kat tasante ngay génn ci ñi laa wax xaaral bi léegi nag jigéen ñi léegi dinaan la ah añ bi noppi na de boo boo dee boo demee de bay ba nga foo dem nga añ fa fu la fa añ fekk bay ba nga añ fa wala fo la reer fekk bay ba nga reer fa nit ba añ noppi ngay doog a ngay bëgg a dem foo dem nëga ni toogal ba añ xanaa da ngaa xiifut soxna jaara daw doon ay xam kon loolu ci ay mandarga ci bokk bokk na ci jikko yu mat nag jikko yu ko mat a royee mooy dafa amoon asmu dafa amoon ak dogu ci li muy def soxna jaara fanweer at ak ñett la dund ca saa boo koy dégg da nga yaakaar ne ab maire bu màggat la woon yaakaar ne maire bu màggat la woon diir su gàtt yow jigéen mag nga maam jaara mag nga ko ëpp nga ko la dund mais évaluer sa dund ba xam yow loo fi réalisé évaluer sa kon moom ak dogu la amoon ak dogu gu mat sëkk ci lim li ñuy wax al azm ak dogu ci ne dafay fas yéenee def nangam moo waral dund gu gàtt gi mu def ci li muy def bu amoon li ñuy wax tasawuf bi siin mooy di niig niigal bu ma nekkee mag dinaa def nangam bu ma nekkee mag dinaa def nangam kon du réaliser dara parce que mag mag fekk ko fi mag fekk ko fi kon moom ci ak ndawam ci la am dogu googu pour def li muy def bokkoon na ci lim ràññi ko woon mooy ku am xam-xam la woon boo xam ne ku jaaxaloon nit ñi li ci xeet mawaat almiya yi maanaam mboolem funoon almiya yi waajuram moo meloon noonu wu jigéen da koo jël nag def ko ci loolu formé ko ci. xeeti xam-xam ku ci yéeme woon ku ci jàmbare woon la waaye bokk na ci ay ay jikkoom yu ma taroon roy it mooy ku mënoon a muñ la moom soxna jaara nekkoon ak mamaroon sali neexul woon ndax dañu bàyyi xel ne li ko indi ci kër gi mamaroon sali bi bi bi neen bi soxna Anta Ndiaye waxee ko ne ko gis naa fee soxna su baax xale la waaye gis naa ko xemmeem naa ko loolu mu nekk sama wéttal ci kër gi nee nañ nee nañ sëñ mamaroon sali da ne ah, man day loolu baax na waaye nag man yoruma lu ma ca def nga xam ne soxna Anta Ndiaye moom it ci mbaaxam yaay maam Cheikh Anta nee nañ moo jaay takkaayam ne kon sama takkaay du ko fekk dem jël jël takkaayu ooram yi mu amoon jël ko jox jaay ko jox ko Maam seen Sali ne ko demal jël ci sama wujj xam nga loolu dawram ja ñun jigéen ñi léegi dañuy jaay seeni takkaay pour liggéey waa ji bu mu takk jabar bu mu takkaat soxna pour moo kenn fekk ci kër gi loolu la ñuy def waaye nag moom deful loolu moom dafa jaay ay takkaayam pour nañ ko indil soxna su baax seen ngir mu wétli ko loolu lu yéeme la lu am solo waaye moom bi mu ñëwee nag fekk condition kër gi mel ne soxna jaar it ak mën a muñam moo tax ba maam euh, euh, Serigne Touba radiyallahu nu fekk lii fekk ko fi bokk na ci jikko yi ko mat a royee mooy ku am secret la woon ko am secret la ndax jamono yi yi yi yi mu ànd ak ku baax ki li jiitu feeñ ku baax ki daana gis yu yéeme yuy mandargaal ne moom lii mu yor lan la kim àndal kan la daana ko gis waaye soxna Jaara dafa daan denc secret yooyu bi ku baax ki feeñee it ci jamono yi nekk nekk nekk tout tànk nekk ku ñuy boot moom Serigne Touba soxna Jaara feeñal na ay yoon ci moom feeñal na ay yoon ci kanamam ay kiimaan yoo xam ne bu ko feeñaloon rek la ko la ko suñ Moussa Ka euh, waxe woon mm, radiyallahu anhu lim ne woon euh, bu dul woon ak euh, mën a denc soxna jaara kon sëñ Tuubaa du dund parce que waa ju baax bu feeñee ci jigéen ju mën a wax bari nañ ñoo xam dañuy dem waa ju baax bu feeñee jigéen ju amul secret dañuy daal di li ah moom di def na nangam xam nga ne nee nañ bi muy toll ci bootu am na bis boo xam ne jëm na ci aw xew ku baax ki di rasu ci ginnaawam ba mu ba mu yëg ne bëggul mu jëm foofu bu loolu ba di ko jëmaat feneen rek mën a dégg waaye bu dëg dëgmalee foofa xew wa mbooloo ma rek ku baax ki rasu ba jéggi dayoo nee nañ ba mujj àgg mu àgg moom ci wax yoo xam ne xëy na euh, jëflante goo xam ne mu jërul ju koy wax rawat na fu ñëpp dégloo ndax ay am na mbir yoo xam ne waxtaan ci ku baax ci damay wax ne dafa yombut ndax mën ngaa wax loo xam ne am na koy dégg koo xam ne mën na koy weddi ca ca ca ca lor ja lor la lor la koy jëriñ la koy jural waaye du ko jural ay njëriñ waaye alaa kulli xaal daal suñ soxna jaara ku ma denc secret la loolu bokk ci bokk ci li jigéen war a am mooy soxna jaara kon ku mënoon denc secret moo tax Serigne Touba feeñ yi mu feeñ bokk na ci mandargay euh, jikkooy soxna jaara it ku amoon ixlaas la maanaam li mu daan def daf sellal ngir jëm yàlla dawu ko def ngir won nit ñi nangam yura aw ko fekk ci loolu moom li mu daan def lu mu a def rek sellal lay def ngir jëm yàlla lu masa def yàlla la ci daan la daan dakk ak bëggam waaye dawu dakk bëggu mel ni mi def loolu lu am solo la mooy ixlaas li jigéen ñi war ko roye la mooy li ngay def rek bu bëgg lu neex diw tax bu bëgg ñu neen jàmbaar nga tax bu bëgg nangam mais na nga koy def rek xaalisatan li la maanaam ngir sellal ngir sa digganteeg sa borom subhaanahu wa taala ndax lu mat a lu mat a bàyyi xel la ci xeeti jikko yoo xam ne nit ñi war nañ koo jéem a jël en tant que jigéen roy ko soxna jaara bokk na ci jikko yi ko mat a roy nag moom li ñu wax xumul maanaam ku giim la woon dawut bëgg fu fees soxna jaara daawul bëgg fés fu mu toll fa fa gën a fés mu defa ne melokaan yi gën a fés déedéet bu ma saan dox ci mbedd soxna jaara daawul jaar ci digg mbedd ci peggi sàkket la daan jaar ci taati sàkket da daan riisu peggi sa peggi sàkket yi ngir rek bu génn mënut ta ñàkk lay génn bu génn mënut a ñàkk léegi ndax jigéen nañ même bu dee julli da xool julli ci jàkka ja julli ci sa kër gën ci jigéen julli ci ëtt bi moo gën ci julli ci jàkka ja waaye julli ci euh, euh, saal bi moo gën julli sa sa biir ne sa moo gën julli ci ëtt ba ci biir mbooloo bu dee mbooloo maa nga fa mais julli ci sa biir néeg ca ruqum néeg ba sax moo gën ci yow booy da ngay naafi la nga xam kon fi ne lu mu doon rek ngir mu nekk loo xam ne da ngay fexe ba am wane wane wane wane ak giim daw nangoo fees léegi nag jigéen ñi léegi euh, dañuy wax ne boo boo boo takkee lu lu loo bëgg ñëpp gis ko faaw nga jéem a fexe dàq fu ñu koy gisee loolu mooy problème bi jigéen am na melokaan yoo xam ne boo xasee mel faaw nga jéem a dem ci fa nga xam ne fa ngay fa ngay fese kon loolu ay ay ay yenn ci ay jikkooy soxna jaara la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel ah, li may jeexale rek nag mooy màggalu a ngi ñëw ñu bari daan dem poroxaan ba ñëw duñ fa jariñoo dara dem fa naan fii de maam jaara doon soqe ñu fay xalangoo ka dóoroo ka takki morso yi wékk yooyu amul njariñ la la la yan bind nga war a jàng dañ naan la fii la teen bi la daan roote fii la daan soqe fii la daan jaar buy buy buy buy taxani fii la daan jaamoo yàlla waaye koy da xam ne kon kon jigéen gu occupé woon nañu ni maanaam mooy ak dundam dafa chargé woon bojji root taxani jaamu yàlla soqi waay waay kon da xam ne kii moom ak dundam dafa chargé woon yow bu dee jigéen nga boo ñëwee nga fas yéene looloon def nga yokk waaye boo fa demee di fa di fa di fa xalangu lu mu la jëriñ suuf sa ngay xala maam jaar dafaa ne woon suuf sa maam jaar ne woon xanaa jóge na fu bu yàgg si ñu ngeen ngeen dem di xalangu ci sa naan fii la yooyu yooyu amul ngeen takk ay morsoka yu baree bari yoo xam ne nit ñi bu ñu leen dañ ko fay def boobaa nañu bàyyi xel na yooyu amuuf amul njariñ la am njariñ moom mooy boo fa jugee yow kat nan laa def ba doon am maam jaara nan laa def ba doon am maam yow en tant que jigéen li may jeexal nag mooy ñu ko tuddee kuñ tuddee maam jaara day wax ne am nga am nga um, cas exceptionnel ndax tur tur nit du ko sa sàkkal boppam sa ñaari waajur ñoo lay sàkkal saw tur buñ la sàkkalee tur nag day wax ne waajur yi war nañu jéem a góorgóorlu ba kuñ tuddee maam jaara ñu fexe ba mu doon am maam jaara maanaam jàngal ko alxuraan yar ko def ci moom jikko yu baax ba doon am maam jaara yow nag bu dee nag nekk nga mag nag ci defuñ la am maam jaara nag fexeel doonu maam mooy fexeel ba luñ doon wax ci maam jaara ci lu baax nga jéem ko jikko woo jéem ko melokaanoo waaye du ceegin aw turu kese mu jaral isma rek amul yow ku la gis nga doon am maam loolu moom mooy dëgg-dëgg la baax ci ñaari étape la am mooy bi nga nekkee xale say waajur yi la tudde maam jaara nañ taxaw ci nga doon maam jaara boo nekkee mag nag ca defuñ ci maam jaara wala lañ tàmbali woon aggut nga mottali fexe ba yow nga doon am am maam jaara ci ay jikko ci melokaan ci lépp yàlla na yàlla defal tawféex xam naa ne euh, waxtu wi dafa mel ni kii jeex na mm, loolu rek lañ amoon ci tënk bu gàtt par rapport ak euh, waxtaan ci koo xam ne euh, dundam gépp njariñ la woon boo ci doon wax dana dana dana mën a yàgg ca du tax nga mën koo jeexal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf euh, sëriñ Alaay Ndiaye Cheikh Ndindi ci euh, waxtaan waa am solo wi nga xam ne seq nañ ko ak moom jëmale ko ci taxawaayu jigéen ci lislaam ak kan mooy soxna jaaratullahi ak yan jikko mooy yi nga xam ne war nañ koo roy ci moom mu tënk ko nag gàtt na lool waaye am na solo nees na ci mën jëriñu waaye itam dina ci ku ko déglu itam dégloo ko ak xel dina la jëriñ kon ñi ñu àndaloon ci wàllu émission bi moom moo di Mahadu Cheikh Ahmadul Khadim moom lañu àndaloon mu di soxna yu tedd yooyu nga xam ne macha allah ànd nañ ak ñun ci wàccaayu euh, màggalu poroxaan gi euh, mbokk ñi ngi leen di sant bu baax di ko sant ci moom mi nag ci euh, yaatal gi nga xam ne yaatal nañ ko ngir ñu mën a ñëw ànd ak moom ci wàccaayu màggal poroxaan bi ñu leen sant bu baax ki ñu àndaloon ci wàllu caméra bi mu di Serigne Gora Diallo ñu ngi koy sant bu baax a baax di leen jox dig daje ci yeneen émission wàccaayu màggal poroxaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu soxna jéema jóg way fi nga nii seewey ñoo jaara moo di ba mi desi di feeñaat teeram wa de foofu ndaw soxna jaara bu giiñam soxna jaara te faral te foog nga xeluma bi da sellal yow yàlla jox barke soxna jaara